bonsoir asalaamaaleykum sama gars yi j'espère que yéen a ngi si jàmm nit maa ngi si jàmm dal leen di jàmm suñu seen Like Mobile votre chaîne de technologie tey dañu ñëwaat pour présenter leen benn super fonctionnalité boo xam ne WhatsApp def na ko mettre en jour voilà avant ñu commencer vidéo bi tamit ñu ngi leen demande fekk ne bi mooy première fois bay doog a dugg si suñu seen Like Mobile bul fàtte ba si bouton abonné bi daal di aimer vidéo partage soo ko activer ko cloche de notification bi loolu dina tax vidéo boo xam ne dugal nañ ko rek yow di nga bokk si ñoo koy njëkk gis voilà tey asubla la euh, dafa am benn fonctionnalité boo xam ne WhatsApp da ko yokk si li nga xam ne moom mooy euh, moom moom mooy mettre en jour yi nga xam ne def na ko si deux mille vingt deux bi voilà muy. l'onglet communauté l'onglet communauté moom mooy lay permettre bu fekkee da nga nekk si benn école wala benn quartier nga am benn information boo xam ne nga ko bëgg ku nekk ngay jël contact am euh, wala wala wala wala ku nekk ngay nga dugg si groupe nga xam ne yaa si bokk euh, di ko envoyé dugg si communauté bi nga xam ne euh, du communauté bi nga xam ne dugal nga si ñoom ñëpp rek message bi nga envoyé ko mu dem si quartier bi voilà léegi bépp information boo xam ne WhatsApp def na ko bala nga koo am da ngay dem si app Play Store wala nga dem sa Play Store nga def sa mettre en jour voilà léegi day dem suñu app Play Store daa def suñu mettre en jour ba pare voilà léegi day dem euh, tapé WhatsApp voilà léegi bu ñu tapé WhatsApp léegi ñu def euh, voilà comme que def nañ mettre en jour léegi day bës directement ouvrir léegi bu mu bësee ouvrir voilà léegi ñu xaar suñu WhatsApp daal di voilà léegi bu sa WhatsApp tijji ko voilà bu fekkee Android nga yor euh, yaa ngi gis euh, communauté bi euh, à à gauche nga gis ko boo duggee sa contact comme que ñun iPhone lañ utiliser moo tax bu ngeen xoolee option yi foofa la ñuy defal suñu suñu suñu communauté bi voilà. léegi nag après dañuy dugg expliquer leen communauté bi moom leen voilà yow bu fekkee ne yow yaa ngi utiliser téléphone rek automatiquement boo defee mettre à jour ba pare communauté bi da nga da nga gis si sa téléphone l' na nekk si à droite mën na nekk si boo duggee si biir contact yi am euh, solo mooy da war fu la bindal communauté voilà léegi boo cliquer euh, communauté bi lan lay jëriñ ah, moom la lay bindal fii léegi mun naa la bu fekkee da nga yor sa école wala nga yor sa euh, benn quartier boo xam ne nekk si benn quartier boo xam si groupe yooyu yëpp yow groupe bi doo mën à chaque fois ngay dugg si groupe bi ngay dugg rek envoyé message bi nga bëgg envoyé bépp groupe boo xam ne bokk ko si quartier bi automatiquement day jotandoo même message bi voilà loolu mooy Euh, yow groupe bi da nga koy après da ngay ajouter groupe yi nga xam ne bokkoo ko yëpp si même communauté bi nga xam ne groupe euh, groupe yëpp day nekk si communauté bi booy envoyé message rek automatiquement ñoom dañ koy jot dañ koy jotandoo directement voilà léegi après nan nga def pour pour pour pour pour pour commencer si communauté da ngay si lancer voilà léegi fii da laaj nga def euh, da lay laaj nga def.

def na discussion bi léegi ñu ba suivant léegi yooyu ñu ba suivant voilà même bu la neex mën nga jël sa benn photo profil mais ñun euh, euh, dugaluñu benn photo profil léegi dañu ba suivant voilà léegi boo gisee suivant fii eh, da lay nga dugal euh, nga nga créé benn groupe wala nga dugal benn groupe boo xam ne créé nga bu fekkee ne créé ko benn groupe si kaw ma ngi lay defal euh, créer un euh, créer un groupe voilà créer un nouveau groupe léegi da ngay dugg nga créé benn groupe bu fekkee ne créé ko benn groupe voilà léegi ñun nag naka lay def voilà bu fekkee ne créé groupe da ngay bés fu mu la bindal créer un nouveau groupe voilà léegi nga créé groupe bi nga xam ne moom nga bëgg a mais ñun créé nañ groupe ba pare léegi day bés fu mu ñu bind ajouter un groupe existant mooy dugal nañ dugal groupe boo xam ne maa ngi si suñu téléphone ba pare voilà léegi nag li commencé zéro ba vingt ans wala vingt group yëpp mën nga ko dugal si même communauté bi nga xam ne heure booy envoyé message rek même groupe yi contact ñëpp dañu koy jotandoo voilà du du jar ngay dem si group bu nekk di si di di di ko dugal léegi ñun day tànn groupe yi nga xam ne euh, moom lañ bëgg euh, à chaque ñu envoyé message rek ñoom ñëpp jotandoo ko benn yoon léegi dañuy jël fi ñu bindal euh, voilà deuxième groupe muy test test deux voilà léegi groupe boobu kese lañ jox pour pour pour pour dugal ko léegi ñu bës ajouté voilà léegi euh, dugal nañ groupe ba pare léegi dañ bës directement euh, fu ñu bindal ajouté voilà léegi ñu xaar euh, léegi léegi dugal nañ groupe ba pare même bu la neexee mën nga dugal groupe bi lu ne daal zéro ba vingt client groupe wala vingt groupe mën nga koo dugal même yëpp si même communauté bi voilà léegi ñun soit nañ groupe bi nga xam ne moom lañ dugal moom lañu bëgg a dugal ba pare voilà léegi naka lañ def dañuy bës directement suivant voilà léegi créé nañ communauté bi ba pare léegi lan moo si des voilà léegi actuellement dañu am benn message boo xam ne dañ ko war a partager dañ ko euh, war dañ ko war a envoyer suñu communauté bépp voilà léegi du du jar ñuy dugg si groupe bu nekk di di di duggal mais na naka lay def si communauté bi la ñuy dugg rek envoyer bépp message boo xam ne rek bëgg nañ ko envoyer léegi ñun dañuy def bonjour comment allez-vous voilà léegi euh, ñun du jar ñuy dem si groupe bu nekk di bind bonjour bonjour bu fekkee ne euh, yow yow yow yow loolu day jël sa temps bépp voilà mais si communauté bi rek dugg envoyer message bi ñu bëgg envoyer mu dem si contact yëpp dem si groupe yëpp yi nga xam ne dugal nga leen si sa communauté bi nga xam ne euh, créé nga ko voilà léegi envoyé nañ euh, message ba pare voilà léegi bu ñu xoolee gis ngeen notification bi wàcce na si euh, beneen beneen beneen si si si WhatsApp voilà léegi bu fekkee ne tamit dafa am koo xam ne voilà yow da nga koo da nga koo bëgg a dugal nga fàtte ko c'est la même chose c'est la même chose voilà c'est très facile léegi nag kay def mooy dangay ngay dugg ajouter un un un membre léegi nga dem xool. tur bi nga xam ne bëgg nga ko dugal léegi nga nga ko communauté voilà léegi bu fekkee ne tamit dafa am beneen groupe boo xam ne da ko fàtte woon bëgg dugalaat même euh, voilà léegi da ngay euh, bi yëpp yi nekk sa téléphone yi nga xam ne moom nga utiliser nga xool groupe bi nga xam ne moom nga bëgg dugal sa communauté voilà nga laaj koy dugal voilà lii yaakaar na dina intéresse ñi nga xam ne à chaque fois dañ utiliser WhatsApp euh, Euh, di di di envoyé chaque fois ay message yu bëri te duñ am temps di euh, di di nekk ci groupe bi wala di di fu nekk ñu dugg fa pour envoyé pour envoyé message bi mais léegi WhatsApp euh, yombal na leen ko heure boo bëggee envoyé message rek groupe yëpp wala sa contact yëpp communauté bi nga xam moom nga créé rek si ngi dugg envoyé bépp message boo xam ne bëgg nga koo envoyé voilà même bu fekkee ne tamit da bëgg a kiitoot communauté bi c'est très simple boo duggee dina la laaj kii